troisième vague ñëwaat na taxawaay na si am mooy comme nan baaxoo di taxawee parce que ñun première vague bi ba mu ñëwee le mais de la commune dajale na toute la jeunesse sa localité pour ñu def synergie pour ñu xeexandoo Covid bi yàlla def mu génne si moyens yu bëri ñu ànd def des sensibilisations joxe ay masques li ñu joxe si masque kenn xamul lu mu tollum ëpp na dix mille masques. te loolu yëpp si poche am na ko jëlee pour jàppale ay ndawam ñun conseil communal de la jeunesse joxe nañ fa ay 1000 masques joxe nañ fi ay gel alcoolique joxe nañ fa ay 1000 aviches dugg nañu si dëkk bi si artères yi si marché yi si gaaru ceer yi di sensibiliser nit ñi ba yàlla defee loolu ba nga ko defee yëpp yàlla suturaal nañu Covid bi wàññeeku mais jamono jii may waxante ak yow Covid bi mi ngi lëmbeeg àdduna rawatina Sénégal ça veut dire que la Covid muy muy variant bi xam nga bu njëkk ba dañu wax ni Covid mag ñi nay sonal léegi jamono ji ñu nekk nii xale yi nay sonal ba pare itim man am naa cinq jeunes yu ma xam si Sénégal génn nañu àdduna ay jigéen ay góor te Covid bi moo leen rey kon la Covid mi ngi reyee mi ngi def ay ravages ça veut dire que pour Covid bi dañ mais c'est très simple mooy nanu am responsabilité responsabilité individuelle responsabilité individuelle ak responsabilité collective. mooy xew yi rassemblement yu bëri yi bu mënul ñàkk nañ ko dindi ñaareel bi nit ñi nañu takk masque yi ñetteel bi nañu def distance un mètre nit ñi nañu raxas seen loxo ñi vacciné wu jiwul nañu dem vacciné ji te tey boo demee dans les hôpitaux yi nekk partout dans le Sénégal jamono ji ñi si ëpp mooy ndaw yi am fukki at ak juróom jëm kaw même ay xale ay xale yu am am na benn information bi ma am si Covid am na benn xale bu mu rey bu am bu am deux ans kon léegi comme Covid bi mi ngi rey te actuellement nii bu fekkee ni nit ñi wu ñu les mesures barrières takkuñu masque yi nit ñi raxasootuñu nit ñi nanguwuñu dem vaccine yi kon je pense que Covid bi dina lëmbee àdduna te bu lëmbee àdduna yàq économie bu yàqee économique ndaw yi duñu am liggéey daa daañu gis entreprise yu dàqe kon nag bañ loolu am nit ñi nañu def loolu si trois mois. Sénégalais yëpp àndandoo def loolu yaa ngi dégg mbooloo yi ñu wàññi ko yaa ngi dégg bu mën bu mënul ñàkk ñu dindi ko est-ce que comprendre nga fi may waxee nit ñi takk masque nit ñi di raxasu nit ñi dem dem vacciné wu ba loolu amee fii léegi ñetti weer je pense que Covid dina dellu ginnaaw mais bu ko gars yi defulee ah ñi si dee dina bëri te ndaw yi ñëw si ëpp te ndaw yi réew mi dafa leen soxla. grandes chaînes yi feneen ak que état dafa war a gën a jël responsabilité am parce que état moo ñu jamonte ñun ñëpp parce que liggéey bi ñetti ministères yi war nañ si jouer rôle bu am solo muy ministère de l' intérieur. mu ministère de la santé ak ministère des transports aériens le ministère des transports mooy nan mooy affaire bi bu mu yomb na sa sàpp si nit ñi ku deful li nga war a def na la yoon daan parce que sénégalais li mu gën a ragal dee na gën a ragal mais li mu gën a ragal tamit poche am nga jël si dara def des sanctions koo xam ne takkoo masque ñu jàppale si marché bi saa waay na la amende benn six mille francs est-ce que comprendre nga transporteur tamit ñi nga xam ñi ngi chargé seen oto nanu tëye oto bi oto bi bu mu dawati une semaine est-ce que comprendre nga fi may waxee ñi nga xam ne tamit parce que ñun suñu force de l'ordre yi ah voilà vraiment la choc suñu force de l'ordre yi dañ leen war a jaa jaay jëfal ñu ngi def liggéey bu extraordinaire mais ñoom liggéey bi buñ koy def fokk seen kilifa yi wax leen ko nanu continuer taxaw si fulla si fayda ku deful li nga war a def bu la yoon waree daan na la daan parce que tamit feebar bi dafa warul yàq sunu sunu sunu économique feebar bi warul warul warul warul rey sunu ndaw parce que man génnewu ma sama bopp génnewu leen si yéen tamit kon léegi ñun war nañu am responsabilité bu am solo bu nanu continuer les sensibilisations la jeunesse de mon pays yéen laay waxal continuer leen la sensibilisation les délégués de quartier les conseil de quartier les bajanu gox les mesures barrières ku nekk koñ bëgg dëkk association de jeunes yi mouvement emploi yi ah na ñëpp taxaw na ñëpp taxaw sensibiliser waxtaan ak askan wi force de rôle yi jouer seen responsabilité koo xam ne def na loo xam ne waru ko def ñu dal sa kaw boo waree bu la waree amende ñu amende la bu loolu amee ñu jàppoo ko ñetti weer je pense que incha allah bu neexee suñu borom feeb dina wàññeeku bu baax a baax baax parce que variant bi am euh, variant bu doy waar la ba képp koo xam ne dégg nga ni sa yaram dafa grippé bu ni grippe la demal si hôpitaux yi demal si centre de santé yi ñu seet la parce que j'ai discuté avec un médecin nee na ma Adama ñiy ñëw di grippe yëpp ñi fi ñëw à quatre-vingt-dix pour cent à quatre-vingt-cinq pour cent dañuy am Covid bi te duñ ko xam kon ku am grippe rek bu mu ni grippe rek la na dem seeti ji na dem ji un médecin mu xool ko vérifier ndax kii am na Covid ndax amul Covid parce que bu la nee amal Covid am nga Covid ñaata bakkan nga na sauver mais je pense que ku sa yaram di métti rek nga am yenn yoo xam sentiroo ko woon sa yaram. buy wax ni dama sibiru buy wax ni dama grippe demal rek si médecin nga dem xooli ci sa bopp boo xooli sa ñu ne am nga Covid nga xool yow nan ngay moytoo wax ka sa waa kër wax ka sa ay proche ñoom tëpp ñi nga xam ni am nga ak ñoom ak contact ñoom tëpp ñu dem seeti ci seen yaram mun ko defee rek je pense que yàlla mën na si def euh, sutura